mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ñi ngi dellu si waat ci tawfiqu borom bi tabaraka wa taala ci sunu dars bi nga xam ni moom lañ jagleel waajal weeru koor wi mu mel ni sunu bind bi weesu gisoon nañ li nga xamante ni nii moom mooy sax saxuk dugug weer wi ca yan anam lay nekkee gisoon nañ ne ma ngay nekkee ci gis goo xamante ni nii ma nga bawoo ci benn jullit rek boo bu wala boog ci seede wala boog ci xibaar kon gis nga yi mooy yoon yi nga xamante ni nii la nga gis kon Islam mom, dafa aj mbiram ci gis dafa aj mbiram ci gis kon du ci calcul ma ngoog comme li nga xamante ni nii def astrologie wala astronomie moom la def déedéet ma ngoog loolu moo tax ñoom seen xalaat yooyu seen calcul yooyu islaam du ko jël ma ngoog ndax islaam moom la mu digal nit ñi daf ko wékk ci loo xamante ni ñoom dañ koy seede boobaa ñëpp am daluk xel ne ah mbir mii kat dugg na ma ngoog nekkut loo xam ne day wékku ci ay calcul nga xam ni kenn mooy toog fële def ay calculam def ay mbiram ñëw ne nangam ak nangam kon nga gis kon <clears throat> loolee noonu la tëdde ak tegtal ya corot ba ca topp mu ne fa in lam yural hilaal waaw suñ gisul weer wi nag gis nga wala boog amuñu seede boo xamante ni nii ñëw na seede ne gis na ko wala boog amuñu xibaar boo xamante ni nii rot na bu boobaa nu ñuy def mu ne bu boobaa wajaba ikmaalu iddati chaabaan thalathina yawman la war mooy ñu matal limu chaabaan fanweeri fan ma bu booba kon noonee la def dañuy matal limu chaabaan fanweeri fan bu matee fanweeri fan nag ñu doog a dugg ci li nga xamante ni nii moom mooy moom mooy weeru koor wi mu ne ndax sunu yonente alayhi salaatu wasalaam dane suumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in gubbiya alaykum fa akmilu iddata chaabaan mu ne woor leen su ngeen gisee weer wi dog leen su ngeen gisee weer wi bu fekkente ne weer wi dafa nëbbu nag fa in gubbiya su fekkee dafa nëbbu am na ci riwaay yoo xamante ni dafa ne fa in ghumma maanaam bu fekkee ay niir ñoo ko muur kon gis nga foofu ci calculu astronaute yi weer wi mën naa mën na génn génn mën na jot waaye niir yi muur ko te gisu leen ko yonent mu ne matal leen compte bi kon gis nga islam ni mu simplifier mbir yi dafa yomb daf ko wéer ci loo xamante ni ni lu naturel la waaye tamit lu scientifique la muy organ de sens yi ma ngoog <coughs> bu ko defee kon ñi ngi la doon junju léegoo léeg yenn jafe-jafe yi nga xamante ni nii dafay am ci weer wi ma ngoog rawatina nag sunum réew nga xam ni ñoom dañoo daal di jéggi jéggi la nga xam ni mooy xilaaf ba dox ci biir masala bi ndax islaam xam na islaam xam na maanaam wuute woo xam ne am na ci ndax àdduna bi yëpp dañuy worandoo wala déet loolu wuute la bu islaam xam depuis démb ma ngoog ak it ña nga xam ni ñoo bokk fenku jant ndax ñoom mën nañoo ànd wala déet wala boog réew mu nekk day ànd ak boppam loolu islaam xam na ko depuis démb waaye li doy waar kay xam nga mooy lan bokk benn réew ñii woor tey ñee wooruñu loolu moo yéeme bokk benn ville ñii woor tey ñee wooruñu bokk benn quartier ñii woor tey ñee wooruñu bokk benn kër ñii woor tey ñee wooruñu bokk benn néeg ñii woor tey ñee wooruñu loolu mooy la yéeme gis nga te loolu mooy liy xew ci sunum réew mii te boo xoolee loolee fañ ko teg du diina du wuute du masala diina du lenn ci ay bànneexi ba kenn ak ay mbiru politique képp lañ ko teg mais du dëgg du yoon loolu il faut ñu am courage wax ko ma ngoog su fekkente ne ñi nga xam ne dañoo autoproclamé wu dañoo autoproclamé wu déglul bu baax dañoo autoproclamé wu ne ñoom ñooy santu saytu weer wi mënuñu ko teg fa nga xamante ni nii fa mooy fa neex yàlla waaye nañ delloo mbir mi fa mu war a dellu ndax dégg ngeen yeneen réew yi ñu wër di am léegoo léeg jafe-jafe yu ñuy am déedéet ndax ñoom mbir ya dañ koo bàyyeeg ña nga xamanteni ni am nañ sañ-sañu addu ci muy autorité yi nga xamanteni ni ñoo jiite réew yooyee ñoñu buñu addo rek mbir ma daldi mat sëkk ñepp daldi di daldi dem seen yoon mais nak lako waral moy sénégal da ngay gis oustaz wala bok nitu diina wala jangale kat bo xamanteni ni dafa japunimom ni mom dafa am ci kaw nit ñi pouvoir politique lolu moy problème bi loolu mooy jafé jafe bi kat <clears throat> nitu diina koku lamu am moy mu jangal nit ñi diina xibaare len diina digal len lu baax tere len lu bon ma lolu la am waye pouvoir de décision def len ñu def bay. len mu ñu lolu waliyul amr moko am waliyul am gis mais kilifa diine gi moom la mu am mooy xibaare atteb diina léegi nag wéyale atte boobu waliyul amri moo ko moom kon Sénégal yaakaar naa bu ñu mànkoo woon jël mbir mi jox ko njiitum réew mi ne ko ah mii kat yaa ko yor ndax bu 24 décembre jotee yow yaay décrété say bés ak 31 Noël yooyu yëpp gis nga ndax am na jafe-jafe amul jafe-jafe yeneen réew yi ñu wër tam noonu lañ koy defee boo demee Mauritanie loolu moo fa am gis nga président ba boo deful ndànk léegoo rek mooy génn sax ci télévision nationale bi daal ne weer wi nangam wala weer wi nangam bu ko defee population yi daal di dox daal di wéy ca loolee gis nga mooy loo xamante ni sax ñoom daf leen a noppal mais xoolal Sénégal ni mu tuutee ñu bëgg am ñaari feet wala ñetti tabaski day yéeme lool day yéeme lool kon mbir la moo xamante ni wax dëgg yàlla gàllankoor ga ca nekk du masala diina de bu la kenn naxee ni ixtilaaful mataali dafa dugg ci biir kër gi ixtilaaful mataali ci benn néeg yow ak sa soxna sa soxna woor tey yow nga wor suba nga ne ixtilaaful mataali la te yéen a bokk benn lal bi ngeen di tëdd bokk benn néeg bok ben mburu bi ngeen di ndékkee parce que bu ngeen jëndé kilo mburu yeena koy xajjo ci digg bi ngeen bëgg léegi jaamu yàlla ñëw ngeen wute ci nan ikhtilaful matali ha te yéen ngi def ittifaq fil khubz ha tattafiquna fil khubz ha wa takhtalifuna fi ibadati rahman ndax lolu xel nangu na ko ngeen deppo ci kilo mburu mën ko partager seen dëggante ba pare nak wuté ci jaamu yàlla gu mag goge nga xamni ponk la ci ponk islam mbokk julidi nañu sétat suñ diina te jangoko fo bi bari na caaxaan bi bari na nañu jàng diina diina dañ koy jàng gis nga lii mooy danger wu ñàkk jàng bu ko defee ñu nax la nag aveugle la ci loo xamante ni nii dañ koy rafetal ba nga yaakaar ne diinee ko nangu te diina mosu koo jàngale soo jëfandikoo woon sa xel da nga xam ne diina nangoo ko bokk benn néeg waxtu julli juróom bu jotee noo koy julli ji ñun ñëpp ay demandoo ca jàkka ja ak sunu garaat lu mu rëy rëy rëy imaam bañ fa fekk dañuy julli ci ginnaawam nga xam ni ca la ñuy jullee ndax yenn xeetu jaamu yàlla yi dafa nekk jaamu yàlla yi mbooloo loolu ñu bàyyi ko xel bu baax a baax a baax bu ko defee ñu teg foofu sunu baaram ñaan borom bi defal ñu tawfiq defal leen ko asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.